kontante mbokk internet Ngalam TV maa ngi am mbégte ak kontante bu baax a baax jàkkaarloo waat ak yéen naa la noonu lay def saa nekk tous les mardis seen émission bi lamb yi ak yaay Fall Tuk Tuk moo leen koy présenté seen doom seen xarit di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp nuyu waa àdduna bi yëpp braaj bi ma jógee Ndiambal Malika Kër di bëggee ñëpp di siyaar di bëggee seen émission bi lamb ji tey nag dama leen indi ñaari champion yoo xam te ñaari ndaanaan lañu tata ñoom ñaar diggante bu avocat doomu Grand Yoff bi ak ki nga xam te mooy caatu yooyu bi doomu tëngee bi ñuy bëre nag journée le 27 janvier prési production moo ko tëgg ah, journée boobu noonu journée bu am solo caatu ngéwél caatu armée bu ngéwél bu jam ñaar bëre grand combat bi ak bébé julde mooy grand combat bi ah. sama loxo ndeyjoor nag maa ngi ci am ki nga xamante ni mooy boîte vocale doomu gën a may wax yi sama loxo càmmoñ ma am ci caatu yi ma jëm bu tënkee ci boîte vocale maa ngi leen di bàyyi ñoom mbokk internet Ngalam TV. affaire bi maa fu ma fu ma jugee mooy Grand Yoff doomu Grand Yoff di béy gaay di béy sama borom mbër bi champion

ko jox wàcc waayam ak ñi mu àndal ak ki mu àndal Ibra tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waaw. ak la demee ah ay champion la ñu bëree def ci làmb yu doy waar xam ne boo leen neex mu boole leen ñoom ñaar comme ñun moom. ñu reporter xam nga ni ñu nekkee jaxase la ñun dañuy jël kii jël kii jaxase moom moo lool tey nag man dama préféré ma denc. boîte vocale wala caab ni ko caab ni ne limousine dama préféré boole leen ci plateau ñoom ñaara lu ko waxam bootee doomam moom mooy loolu mais di bëggee waa àdduna comme ni ma ko waxee sànq rek di di encouragé Thiatou Yoff di félicité Diop 2 ah di di di di encouragé Boy Niang aussi di félicité Modou Lo te naan ki la daal war na laa daal lamb noonu la nit bu tolloo ci ay buddeem ak tolloo ci ay buddeem te Modou Lo jamono bi daal toll ci ay buddeem roi des arènes moom ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax di encouragé waa Pikine ñoom aussi di leen di masawu bu baax a baax a baax ndax tamit lamb moom nee nañu foola mais ku daanul moom mooy loolu di di masawu Diop de di ko masawu waat di masawu képp koo xam ne dëkk na yëmbal benn bras bi Kër Massar mu ngi leen di masawu bu baax a baax a baax di sax bu métti bi amoon ci combat Diop de di jaalewaat ñi nga xamante ne ñett ñi nga xamante ne seen seen seen bakkan wàcc na ci. ñu leen di jaalewaat bu baax a baax leen masawaat boo ko jiyeen gis leen naqari ah. maam la yow aussi sa apprenti bi wàcc tey kenn ci ñoom ñu ngi leen leen masal bu baax a baax a baax a baax mu nekk lu métti lu gis de ah mais jaamu fexe nag yaabaat ba borom bu sañoon boo ko liggéey kenn ci gaañu mais ñu ngi dem masawaat ñoom tër bu baax a baax a baax ndax ñëpp ñu ko ko dëgg fa yàlla waaye ko aal waaye ko aal ci biir lan moo waral boîte vocale lan moo waral boîte vocale boîte vocale bi xam ko may booy moom daan war a musa dama musa lëkk waroon raat di xeex ba gars yi tuddee moom boîte vocale boîte bi fa la jógee ci xeex si raat ba ñuy nekk booy dëgër boobu lëj sam benn grand ne ma yow comme nga yow doo bàyyiw ba si nekk tey tuddee nañ la boîte vocale boobu nekk goo mbër sama mbër ok mais tur yëpp nekk fi boxeur yi nekk fi tuddee wuñ la kenn ñu tuddee la boîte vocale. waaw xëy na tur bi mooy loolu ba ma ko tuddee ba léegi moom macha allah quoi. dëgg yàlla jig ma jig na la daal ok nga ay mbapat. waaw dañuy mbapat ba léegi. Mm. semaine dimanche bi euh, samedi bi passé rek maa ngi woon village barki alxuraan. Mm. kii parmarin fii. ok man damay mbapat. Mm. kon daal bu ñu la dégloo man xaaruma làmb de. ok bu ñu tur bi daal xeex moo waral ñu tuddee la ko. waaw. acca tegal noonu sa loxo caat. caat lu tax tur yëpp nekk fi caat lu choisir caat wala caat caat la caatu limousine ak limousine bi lan moko waral tour bi. waaw tour li ko waral limousine ma ngay nuyu au passage quoi. Mhm. suñ toma hmm ama ci mom lañ doon xol xama nek ay tuut tanga doon jàng. muy beure ñuy dem diga ko wa ñu dem ba soppe ko torop nag. Ah, bi ñu bu dugg ci làmba ñu duppé ko suñu bop quoi lolo waral turu caatu limousine bi. caatu limousine waaw. ok. caat toj na mbapat man waaw xanaa tojati kay waaw mbapat moom wax dëgg yàlla moom yàlla def na jël naa fa lu ne quoi waaw jël naa ci lu bare bare bare sax macha allah waaw dañ nga ko daal waaw ñun ay boo dee ko ñun ay mbëru mbapat lañ ñun mbapat bi lañu gën a kii sax ka arène bi quoi arène mhm. allah am na solo koo koy caatu limousine doomu tëngéej bi boîte vocale doomu Grand Yoff bi boîte vocale ci biir làmb lan moo dugal ci biir làmb waaw boîte vocale doon na ki xam ne daanaka ba nekkee mën naa nekk ba mu nekkee ndaw. Mm. da son père am écurie. Mm. yor yi écurie. ñuy foonte di bëree. Mm. ba yàlla def ñu tey ñu ñu ñu toll fi mu toll nii mais ñun ba ñuy nekk lu ndaw la ñu commencé. Mm-hmm. di fooyee làmb di bëreent. ok kon bu ñu la dégloo daal doom yu mbër nga. waaw waaw da ngay laajte. ok dama yàgg bëree. kuy sa papa mooy Père Diaw. Père Diaw ok. Mm-hmm. waaw ñun mooy loolu ñun sama gaale bu ma bu ma ma demoon sama gaale ma sotti la saako drapeau. Hmm. barke alxuraanu karim. soo ko jëlee ci mbapat yi est-ce que nekkul drapeau yi nga xam ne da ngeen koy ñaaw rek yéen teg ko pour ñu. yéen ngeen woon ñu ko. mooy loolu loolu duma ko def. Hmm. ok Mass Vocal ban année la ci avec Fra. waaw mun naa ne yaa du ma si gàndaal yàgg naa si. yàgg naa si. yàgg naa sigil tuuti sigil. sigil jàkkaarloo caméra hmm. ban année nga ci dugg. année ma si dugg yàgg ya, na mais kan jàpp ma sax ya, ak année bi. jàppatoo na de ok ndax tente bi hmm. tente Ama Baldé boo ñaa tente bi. waaw waaw bëri naa si. ñun ñoom tafaati nag ñooñu. bëri naa si tente bëri naa si. ok waaw. yaa ci ñaata combat. man combat. ñaata victoire kan ak kan nga daan kan ak kan la daan. non ay ay. ndaanaan ay ndaanaan laa daal. Hmm. waaw macha allah. kan ak kan nga hmm. daal. ñaata ñaata victoire nga am ci douze combats yi. waaw maa ak dix victoire deux défaites. Hmm? deux défaites yi amaana ba muy soog a dugg si làmb la doon gan. ok waaw mais mooy loolu noonu. ay kan ak daan da mbaa nga fay. Unca. Mambala. ay ndaanaan laa laa daan bu muy toogee di ko wax duñu fi mm. yi kan kan ak kan moo na ko jox. ah deux deux la. Mm. Pape Robo. Mm. loolu ba may soog a la. ok da ngaa da ngaa teglante deux défaites. waaw non deux défaites yi ba may soog dugg si làmb la quoi. koo teglante. waa non non. ok dama njëkk a bëri ma bëri daan. Mm-hmm. ma mm-hmm. ma xam ne ma xam lu yoonu làmb. Mm-hmm. Maka ngay def di ko teg sama tànk. boobu ba léegi yàlla dama ok kan nga mujjee bëreel. ku mu mujjee bëreel kii laa mujjee bëreel. Mambala Junior. nga mujjee Mambala Mambala. Hmm. Mambala moom laa mujjee bëreel arène nationale. bi at bi sifflé combat bi mën nga ñu cee ñëwalaat. bi at bi sifflé sa digganteeg Mambala combat bi. waaw Mambala comme comme man moom man mooy li may wax rek. bër hmm. bi dama ko jël nii sax. bilaay walaay taalaay pour maanaam mooy loolu noonu mais xam nga moom moom moom instant bi li li sax su sama yoonu la am wax dee dëgg. lu tax mais yaa maam Balla laa bëgg nga ñëwal ma rek combat bi. man grand combat bi man fa laa teg sama bët. ok grand combat bi man fa laa teg sama bët ci kàttanu yàlla incha allah. mais sa combat ak maam mën nga ma koo décortiquer. maam Balla ni nga ko bëree. waaw maam Balla noonu la dama ko dama ko dama ko dama ko bëreloo. Mhm. dama ko bëreloo dóor ko ba mu wàcc. Mhm. bëreloo ko ba mu bàyyi. mbër ama koo acca loolu la demee xam naa nag caat boîte vocale mi da lay da lay menacé di la jéem a napp ci pet mais ñu ngi ñëw non ñu ngi ñëw tegal noonu sa loxo caat ma la mu may ma tegal noonu sa loxo ñu ngi ñëw tax ma mar mun naa la sama doomu ndey booy grand yof waaw mi nga xam di di di di di di di bëgg sama grand bi nga xam ne mooy BBC Bébé ci ni grand bi nga xam moy mooy non day jël xaalisam bu bari di ñu fayal sal ñu entraînement ñu codé dañu tek lu metti hmm mag boy grand ñu dem entraînement sax fajar moy loolu lamb dama ci wara lek ok tax ñu dañuy daj bu ñu daj dafa metti di nga ñëwaat tegal woon sa loxo caat ban année nga dugg ci lamb yaa ngi ci ñaata ko ñaata combat ñaata victoire ñaata défait wa ñun bi ñu duggee ci làmb yàggul ya, ko hmm wa mais ñun instant ñu ci ñu 14 combat ok deux défaites ok kala kala la daan man Marley. waaw mhm. ah, Marley Marley numéro 2. ok moo ma daan. waaw ak kan. ak Tigo. ak Tigo bu Kër Baaba. ok waaw. Mhm. nga daan kan ak kan. waaw ñi ma daan bari nañu. limal ñu ci quelque rek ñu xool ba xam ndax yaa ak booy bi ay. kii ngeen. trompeur numéro 2 daan naa ko. waaw daan naa taaw àndal. Mhm. yaa ngi dégg. boîte vocale yaa ngi dégg. building mhm. building bu mujjee daan ambulance bu Thiès. waaw building daan na ambulance sama moom laa mujjee daan sama grand combat bii passé. ok waaw. mais macha allah ñoom ñaar boo leen di déglu nga xam ne ñaari ndaanaan ñaari champion la kii mu ngi ci douze douze combats. waaw dix victoires deux défaites. caat yow yaa ngi ci quatorze. quatorze combats mais caat kon sa diggante lan moo waral nga jël nga jël boîte vocale. non non làmba la rek. xam nga làmba moom. ñun ñëpp ay moroom lañ kii moo ma njëkk a bëre. mu mel ni li ñuy wax ne caat daa xaw a tardé ci làmb dëgg la kii moo ma njëkk bëre. mais làmba amul moroom quoi. ok ñun ay adversaire ñun ñëpp ay xale lañ dañoo war a bëre suñu biir. ok waaw man bëgguma ay mag damay bëgg a bëre samay morom. Hmm. waaw mais liñ liñ ne da ngaa xaw a tardé ci làmb. ndax li nga jot a bëre. 14 combats nga jot koo am ba léegi caat nekk fi mu nekk te caat ba tey jii ni ñu bëri boo leen nee caat limousine sax seen xel da kii da ciy kii loola lool. waaw nga rek làmb ak ni muy doxee rek. ok waaw tegg bi quoi. Hmm. tegg bi moo moo waral lii yëpp. Hmm. mais kon heure bi nii kii du ma bëreeg moom sax. ok waaw mais bu la 27. Hmm. naa wanaat naa wanewaat ci làmb beneen xar kanam. ñu la doon dégg. waaw di la dégg yeneen adversaire waaw ñu jékki-jékki dégg ne caat limousine jël na building. jël na building lan moo tax ndax xool nga ko yow est-ce que xam nga ko bi nga koy jël aussi. gisone nga ko bi nga koy jël. non man awma problème adversaire ok problème adversaire awma ko man ku taxaw sama kanam rek maa damay jàpp maa man kon so abi yow la yow yow ya ko jël yow. man na nga jël. ok mais mais bu advocat ki da amine dafa paré parce que yeneen adversaire lañ ko doon wax ñu jéki jéki dégg né jël na bu advocat est ce que bu la xamoon dina la jël. man adversaire bu ma jox. ay dem ci digg bi. nga reculer délo avance. jox nañ ma quatre yi nga xam ne ñoo dellu avance. ok. dëgg la nit ñi kenn du ko xeeb. Mm-hmm. billaay wallaay ndaanaan la. Mm-hmm. cent millions mais sama gars yi ba mu leen nee moom laay bëreel gars yi dañoo mer. lu tax ñu mer ne ma kii mais mooy loolu. lu tax la. yow boo xoolee xoolal man ñi ma daan ñu ngi bëri ay spécial. Mm-hmm. ay safula man fi ma nekk ay spécial laay bëri affaire yooyu. mais lan moo waral waral loolu. mbooloo mi la. wala la ñàkk mbooloo la wala la damay ok man grand bu ma jugee grand dañuy jug. Mhm. billaay walaay. wala loolu yow yaay taamu ay adversaire dinaa la wax benn affaire rek. Mhm. bëri àll ba ak bëri ay côté Kaolack ak côté yooyu noonu bokkul ak fii fii bëri moo fi am ak xeex. non loolu moom jarul nga koy wax caat limousine ndax xam nga ne caat moom. Ah, borom hmm? fii du ma ci gan la demee ma ci gan fii du ma ci gan dalal nag fii du ma ci gan. lu leer laa lay waxal nii nga xeex de mais bu avocat bu ma bu ma la dégloo yow daa mel ni dangaa xaw a xeeb caat limousine xamoo ko. xeeb ma ko. Hmm? Hmm. mais après ay comprendre bu combat bi jàllee le le combat bi kañ la le 12. le 27 le 27 janvier le 27. le 26 ngay comprendre. la la la vingt huit mais mais est-ce que caat yóbbul sa tamit la vingt sept nga ne la vingt huit la vingt huit lay comprendre. lay comprendre. est-ce que comprendre nga. parent nag man mooy loolu ni laa laa la demee man ma jàngul yaa <laughs> yow foo jaar yoon la. mais caat caat boîte vocale daa mel ni dalaa xeeb wala dalaa xamul lan moo waral moom mu xeeb la. essence bi nii nii. bëgg a xeet. moom bëgguma sax mu xam ne essence bii nii. du bu ñu bëree ba pare. Hmm? mbër lay xam kuy caatu limousine. ok billaay wallaahi. bu ñu bëree ba pare te nga may door a xam sa waay. xool ko xool ko ndax ni may ni may xoolee nii xool ko. bër saa yi teg teg lu métti moom ci man dama lay wax teg lu métti ci man la fekk baax. ma dama àndar na ba jeex tàkk. gis nga waaw loolu dëgg la loolu. voilà bu ñu jàppante nga xam ne am naa. la 27 nag sa waay la 27. Oh, si ngay xam ne am naa doole wala amoo doole est-ce doole du maag yow sax aw ma doole de billaay du fii dara nekk fi du maag yow mais bu ñu jàppantee barki alxuraan nga xam ne naa ah, doole bañ jàppante bu ñu jàppantee bañ jàppante mbër ah, maa mën maa ëpp doole maa gën ci yàlla buñ nee runkum xam nga ñun moom ñun supporters yi dañoo xaw a seytaane ñun dañoo bëgg rek ñu ne runkum yow man ragaluma loolu de eh, man bëgguma lu yomb kii dina daj lu metti saay bëgguma lu yomb yow man waruma lu yomb sax naa leen bàyyi bàyyi ma jaxase leen ñoom ñaar rek nii daa daa neex. mbër am nga combat de. am nga combat am combat moo tax ma jël di entraînement di daj lu metti vraiment nga may laajte ne am na am naa combat wala ma combat dajal lu metti bu ñu jàppantee nga xam ne ngay xam kuy caatu ah, man maay borom top 5 <laughs> jàppal ah. eh, man maay borom top 5 eh, mais nga xam ne lépp dëgg la mais boo avocat man maay borom top 5 boo avocat est-ce que mës nga seetaan combat am kii maa moom du xew. non ma ne ndax yow mës nga seetaan combat muy bëre. kii barki alxuraanu karim. billaay wallaay taalaay benn combat laa seetaan. muy ban muy ban. billaay wallaay mooy combat bu mujj mais waaye yow kii du bëre kat man damay bëgg mbër buy bëri comme da ngay bëri. <laughs> mais nag mais nag. mais nag mais nag caa man damay bëri bëgg na dem nga naan du ma bëri. caat ki daa mel ne xamula. la. bëre force la mais bu xeexee déglu ma la maa ngi yow dama bëgg ñu cons ba amateur yëpp kontaan euh, ñu combat da yuuxu ñu reporter nañu yuuxu ba dee grand combat eh, yow parel bëri nga conseil parel suñu combat moo naan da grand caat boîte vocale bu xeexee di nga samp jaaga lu mu mu lu mu andi fekk ji di nga samp jaaga ñem nga samp jaaga ak moom xool nga ko ki lu may ragal ci moom daa pare de man lu ma sama bët may sama fit du ma ko xañ. ok. billaahi ki dama koy tegal lu metti bu jour ba. mais moom daa mel nii danaa xamul ne ah. xam xamul nu mu demee le 28 la may xam. ok mais bu avocat caatu limousine bu ñëwee samp jaagat am jóob joxal njaay. tegoo ma de combat bi soxla ma si jàppante mbër. loo bëgg loo andi fekk fi ma jàppante de bu la neexee ñu raag ba dix minutes yëpp jeex yow xam nga yow yow bul arrière rek yow bul teggi tànka yow est-ce eh, que seetaan nga samay combat yow bul teggi tànk laaw bul teggi tànk est-ce que seetaan nga samay combat caat wuyul seetaan nga ay combat soxla ma sax xawul ay combat man li ne ci man laa gëm. mais yéen daje ngeen eh. se yéen ñaar daje ngeen CNG ngeen xoolante bëggante joxante loxo nii nii nga jël ko. non ah, micro bi micro bi micro bi dimbale leen ñu ci micro bi. dimbale ñu ci micro bi micro bi. micro bi ah. waaw te toog leen toog leen micro bee tax toog leen micro yi. micro yee tax. leen micro ah man man maa bëgg lii. say morom jaar dañ fay jaar force da ngay tëdd ah. eh man bëgg wax ji. mais man bëgg naa lii de. damay bàyyi wax ji yow xaw ma kan moo la euh, taxawalal combat bi mais taxawal na la combat bu neex ndax ñaari xele la ñaari naataango ñaar ñaar ñoo xamante dañoo bëggante tolloo pare ci lépp. moo dàq na grand combat bi man combat bi mooy sama combat. yaay Fall. Mhm. waaw Morala dañ may yónni yàkkamti ma. Eh, ndaw. waaw dafa am lu ñuy xaar ci man. te du kii moo may téye. kii ñeme na la de. kii faxas jàll la kii ñeme na la de. yow di nga xool kii jàkkaarloog moom kii faxas jàll la waaw. kii faxas jàll la kii du du ku may téye ci làmba. mais bu avocat lool loolu dégg kii li mu wax loolu moom yow yaa ciy wax man duma ci wax. mais mu xool la ni nga toll nii ak ni nga mel nii nga xam ne yow instant boo sañoon sax combat bi ñu ñu ngeen bëri ko léegi léegi. te ki buma ma nekkee fii sax di wax ak mom wax ju bëri bi sa dama yem te daf mu commencé sax yem. waaw lay niru nak yem na la moom no yem na la bala verset. yow bala verset di fi nekk di wax nii sax bala bala bala bàyyi verset. bala verset. yow nga xam verset. lépp bala 27 di wax wax ju bëri di nga am nga combat pire pour yalla pire ngay lo acca bu fi nekk di wax ju bëri sax damay yem. dànk rek. noonu la demee ah seen émission bi làmb ji nee naa ñun dañoo seytaane. di def si ñun xaalis ñuy entraînement di yeewu matin soir di entraînement di daj lu métti. mais est ce que est ce que xaw a tuuti nii moo tax nga xeeb ba te bëre bee ëpp euh, jëmm ji. mbër mbër am nga combat rek la ñuy entraînement waa naas man am chaque sa <laughs> mooy sama métier acca noonu la demee ah mbégte ak kontaante saa su nekk nee naa seen émission bi làmb ji nii lay demee yaay faal tik tik daa seytaane moom day xool loo xamante moom mooy loolu ma ëffal leen xamna naa ne nag bés bu ñuy raak fii moom euh, sama ngaam yi nañ ma ko moytu rek mais en tout cas prési production le 27 janvier journée bi neexna te combat bi moy sama combat néna le 27 janvier prési production moo ñu woo fële ci arène nationale diggante euh, armée bu ngewel ak ak ki nga xamanté moy bébé jul de grand combat mais spécial bu indi len boîte vocale xalé grand yof bi indi len caatu limousine xalé tëngéej bi ñom ñaar dégg ngeen liñ kii nii rek neex na daa neex mais mais mais boîte vocale tey jii ni nga gisee saison bu passé bi saison bi ñu génn saison mille 2023 bi nan nga ko gisee ak lan nga ci jàngat. waaw naas saison 23 bi. naas 2023 bi bi ban jàngat nga ci dem waaw sant yàlla pour sama côté wala pour côté ban. pour ñëpp rek lamb. waaw lamb mooy loolu. lamb hmm. na gars yi jàppale rek. te hmm. xam ne instant bii lamb mooy loolu. lamb. ñu dañoo bàyyi seen yitte yëpp bàyyi seen liggéey yëpp nekk si làmb kon tey jii bu ñu bàyyi lépp topp làmb làmb di topp làmb kon tey jii nii gars yi dañoo war a mën a jàppale bëri ndaw yi parce que comprendre nañu dañoo sonn mhm. ñun amuñu benn liggéey lu entraînement entraînement mooy loolu noonu kese la ñu am mhm. est-ce que comprendre nga. Mm. waaw noonu la demee kon tey jii mooy loolu noonu yor la yor la gars yi bàyyi làmb bàyyi bàyyi xel làmb. Mm. est-ce que comprendre nga. Mm. ñun ay néew di doole lañ. boo xoolee salle dañu koy fayal ndekki dañu koy fayal bi su mel ne grand moo njaay. kooku mooy loolu noonu chaque jour mooy des ndekki bi. est-ce que comprendre nga. waaw noonu la demee kon tey jii mooy lool ñun ay xale lañ rek. bilaay walaay taalaay. bëgg làmb léegi léegi saison 2023 bi ñu génn. yan xale nga ci gis xale yoo xamante ni ñii bu leen jàppalee ñu dem ci kanam. képp kuy tax ngemb rek. mën ngeen ci seppil quatre personnes rek. non man buma ci si waxee mooy loolu noonu mais tamit ku ci melni Boy Grand F. Mm-hmm. Boy Grand F. Mm-hmm. Grand F. Mm-hmm. Boy Grand la tuddu waaw yow rek la deglu dañ ko baye xel. xale la boy ñew ñëw. si làmb barki Serigne Bamba don xale bu ndaw gëm bopam billaay walaay bi nga jàppalee mu dem. ak kan. man moy sama sa bien wo de. Mm. yow mom kese ngay top dal suivre gars yu bëri ci saison bi. bu weesoo loolu bu weesoo loolu suñu waa écrit ku si mel ni ñoom Paare Baare ñami ñami mm. sama gars yi. ñi fa mm. nekk waa écrit beeg yooyu noonu ma waa école de Père Diaw rek ma keneen. Mm. ok Thiam. di mbëru waa di bëggee waa mbëru Grand F nag. waa Grand F mbooloo ku si mel ni mbëru Grand F mbooloo ku si mel ni Zarko suñu grand. ak Nandi Fall bi nga xam ne tamit boo doon bëree barki démb yàlla may ko ndam. comprendre nga. ay ñoom serpent noir yi nga xam ne mooy loolu grand yaaf lañ dëkk mm. di bëgg sama kër si bi nga xam ne tamit rasala mm. vita mm. ñoom dañuy sonn si ñun bilaay walaay aco eh, di ngi leen bëggee di ngi leen bëggee temps bi des na tuuti caat saison 2023 bi yan xale nga xool xam ne xale yi bu ñu leen jàppalee na nekk ay champion waaw saison bi waaw damay njëkkee ci ñun rek suñ bopp waaw ñun làmb dafa am yaakaar ci ñun. Mm. kon làmb daf ñoo war a gëstu quoi surtout ñun mbër yu ndaw yi. Mm. mbër yu ndaw yi boo dee xool yaay faal ñoom ñooy neexal làmb mbër yu ñuy fay ay centaine de millions mm. bu ñu ñëwee. duñu puus duñu paas dëgg la de nag waa làmba dañoo war a geesu yu ndaw yi mbëru ndaw mbëru ndaw fayeeku ay cent mille ay deux cent mille bu ñëwee ñooy feesal estaat ñooy fecc ñooy bëre bëre bi. wallaay dëgg kon yoon la quoi ñu leen di jàppale di leen di fay yenn kase yi ci làmb quoi. dëgg la moom dem ciy wax. dëgg la waaw mais ay ñoom Alboury ñooñu ay révélation lañu. ok ay ñoom Petit Baye Fall. ok waaw ñoom Deuxi ñoom Abdou Gueye. <laughs> mais ñi ñoo neex ku ci nekk daal sa écrit nga seppi rek. mais am ngeen da ngay ràcc ah, jëmale sa kanam am ngeen ci droit ah. noonu la demee comme ni mu koy waxee rek mbër yu ndaw yi ñoo ñoo yor làmb mbër yu ndaw yi ñooy làmb mbër yu ndaw yi ñu maanaam bu ñu feccee mu neex bu ñu waxee mu neex bu ñu bëree mu neex wax dëgg fa yàlla mbër yu ndaw yi instant bi ñu lëmbee làmb mais nag man daal bi neex na ma mais comme ni ma ko waxee léegi rek maa ngi ma masawaat waa benn baraag bu baax a baax a baax képp koo xamante ne sa doom daa génn àdduna rek ci combat bi rek ñu ngi la koy masaw di la ko jaar di bokkaat ak yenn naqar bi bu baax a baax a baax a baax ñi ci gaañu tamit ñi ci am ay blessures yépp ñu ngi leen di ma saw lu ngi leen di ma saw bu baax a baax a baax di ma masaw encore champion bi muy Diop 2 ndax li dal ci kawam daa xaw a metti mais nag jaam ak pexe yàlla ak dogalam yal na ko yàlla mooy xolu muñ may ko képp koo xamante ne rek sa doom dem na ci ñu ngi leen di ñaan yàlla may leen xolu muñ fi ñu jëm gën a leen téeméer junni yoon fi ñu jógee di ma masaw yëmbal benn baraag Kër Masaa Malika bàyyiwuñ kenn prési en tout cas combat bi neex na euh, boîte vocale bu arbitre wàccee loxoom ah xool ay juge am ne leen ndax pare ngeen ñu ne waa mu wàccee loxoom ak sifflet wàccee loxoom seen diggante yéen ñaar kan mooy diriger combat bi. mbàccum gerte yi kay commencé. yow yaay diriger combat. mbàccum gerte yi kay dina dal dina jóge fu eh, ndaw ca day neex rek kuy diriger ci yéen ñaar combat ma ci woowee woo na naar ci góoram mm. man maay diriger man maa a nekk xale man ma ko may mu taxaw fu mu taxaw dama ko fay fekk maa la fu mu taxaw dama ko fay mais wuyu ko balaa ngay bégee da ngay bégee maa ngi bégee sama grand Ama Ndiaye nga xam ne moom tamit moom tamit daf ma fayal aspa pour ma fayal sigil sigil tuuti baax baax vocal yow nag maa ngi lay bégee bu baax a baax a baax moom tamit yow tamit xam rek da ngay yëkkati sa xaalis di ñu fayal aspa ñuy entraînement xam ne di daj lu maa ngi lay bégee at waa soi yëpp maa ngi bëgg maa mais nee na moo gën a féete xale waaw nice mooy diriger waaw kii lu muy wax ni bu doxee ñëw ci yow bu doxee ah, wut si la nice xoolal ma du ma nekk fii di wax ay wax ju bëri. non jaar nag da ngay wax nag ndax yaa nekk avance am nag. mbër baa ba jour combat yaa nekk sama di wax wax ju bëri. yaa nekk sama non wax ju bëri jaru ko sax. mu mooy mais mënu cee ñaan di wax wax ju bëri. man damay jëf bu arbitre waxee rek. bu arbitre génnee suñu diggante jëf moo ci des. non mais mënu cee ñàkk ndax da ngeen di neexal tamit. non mais kii gaa yi mu ne kii. fii affaire de yebel amu fi. non yebel moom amu ci ñun ay adversaire lañ. fii affaire de yebel ñun ay adversaire lañ dañoo dañoo ñëw fii pour wax <laughs> waa delloo na avance de. damay ne est-ce que moom laajte na Mame Balla bi loolu wax wax ju bëri. lu tax du may laaj Mame Balla. est que ñoom ñaar benn lañ tamit est-ce que caat ak Mame Balla benn lañ. demee comme nii. Hmm. nii la demee woon de. dellu wax rek. saa am nga combat de. bu nekkee mbabat bi ngay wax noonu maa la gën a mbabat maa la gën a. maa a yaakaar rek bu nekkee àll bi ngay wax nii maa la ko gën a. waaw waaw baax na àll bi samedi. mas ngeen daje yéen ñaar samedi bi a génnee par avertissement. mas ngeen daje dama lekk. Ah, kon du ma kii. waaw baax mais mas ngeen daje yéen kii nii. ba pap waaw kii mosu ñu kii bu ñu daje woon na ay warance nga man ay daje. waay ndaw. mbër bala 27 bala 27 doole. sigil sigil mbër mu doole de. saa yi doole maa ngi doog a mbër bu la 27 dina la Barbacar arrière tuuti arrière arrière tuuti la ndaw la waaw naaj ba jour kon yow da ngaa jàpp ne say morom ñi ko doon wax bari nañ de caat yow ngaa jàpp ne euh, kii kii Barbacar moo la ma daf ma mën a ëpp doole fuuf sa hmm. yu bëre maa ngi raam bàyyi ba jour ba. kii xale la de. muy bëree maay raam caat kii xale la de. muy bëree maay raam kii da ngay xool kii maam moom kii ba kii bi muy bëree maay raam kii fu ma ko woon gars yi man paa bi yow paa bi ngay bëreel. <laughs> ñu ne la yow paa bi man man man man xaaral man sax man man xaw ma. ñu ne la paa bi ngay bëreel gën a nuru paa. yow yow billaay wallaay yow. maanaam kan moo gën a nuru mbër. billaay li may entraînement doo ko entraînement li may. maa la gën a nekk man man li may de dangay de li may de dangay de. ñaar yow duñu benn. li may de dangay de ñëw laa te bu ñu jàppante nga xam ne xale bu am doole nga. bii laaj bu ma la jëm fu ma la awalee li ngay wax ni yëpp baax na man xoolal man. sama fit bi génn man hmm? kenn mënu ma xaw a naan man may jëm ak xafatal naan mooy loolu noonu. <laughs> mooy loolu de mbër. loolu neex na mbër pare foofu. mbër man da mat. maa la gën a pare foofu. yow boo duggoon gannaaw yi nga laajte ma. saa du tax ma lay laajte. soxla ma la gën a os ma la a lëj. boo leen jàpp sama njaabu bi man damaa seytaane de ñoom ñaar la man sama yoon nekku ci. ñoom ñaar la. kii arkewul sax. bala benn sax gën a arke a jàpp sax. ma wala jàppee. déggu ma boîte vocale nga ne lanul. lanu. loo wax léegi nga ne lanul. luy arkana kii seen kii gën a os foofu. ma dama os. yaa ma gën os yow. kii bu ñu yow bu ñu mbëkkantee ba. nga xam ne bu ñu jàppantee ci nga xam ne am nga combat voix vocale maa la ëpp doole foofu. yaa ma bu doole. billaay maa ëpp doole. yow ngay paa nga la ëpp doole man dinaa doon mag cere nga naan man nii yow ngay mag. acca neex na sa jour saa yu ñëwee fee ngay mag. kii laate ko kii saa yu ñëwee sal fekk ma fa te barki Serigne Bamba Codé dañuy teg metti ñun bu ñu amul ñun xaaruñu combat. mais man bu ma amul combat eh, man bu ma amul combat sax damay entraînement. alxuraan matin eh? allah. barki Seydina Mohamed sans combat. Mhm. alxuraan. Mhm. man du ma xaar ba am combat ga man combat day ñëw fekk ma nekk si entraînement ma ñëw renforcer barki alxuraanu kari saa xamal sa bopp rek ñun chaque jour dañuy pare chaque jour dañuy pare combat bu newoon tey tey ñu bëri def émission fekk ma fa te bu ñu ñëwee dañuy fekk ñu liggéey lu metti ñu na xel ay xale lañu mbër saa yi waaw am na doole wala moo doole bala vingt-sept ñu jàppante arbi soufflé buñ dalantee leneen ngay tal bu arbi soufflé leneen ngay tal yow lii daa neex de def sa émission waxoo wax ju bari ñoom ñooy doxal ñoom ñooy doxal émission date bi dafa sori daa sori ah. da nga ko yàkkamti nii. da ko yàkkamti nii tax jël sama licence si as dem compétir ji yàkkamti moo tax mais bu bu ji bu waay yow. mais caat yow kii. am na combat de. non non yow mi yaa am combat caat yow mi yaa am combat. gis nga ko kii daa pare de caat. kii maa gën a pare foofu kii day kebatu nii rek. bilaa maa gën a pare. Ah! man damaa pare de. man de jom naa. nan lay demee rek. émission bi daal neex na daal ñoom ñaar daal ñoom ñoo doxal émission yi ma daal yi bëgg naa ko ci ñaari mbër macha allah ñun ay seytaane lañ nay neex nay biir nay metti ñun loolu lañ soxla moom mooy loolu mais waxtu ci baa nga xëccu dem ci jeex di am mbégte ak kontaante saa su nekk waa dama leen di bàyyi ngeen tàggatoo di am mbégte ak kontaante saa su nekk jàkkaarloog yéen bokk internet Ngalam TV ñu ngi am mbégte bu baax a baax mais li ma leen wax yokku leen abonné yi ndax seen seen abonné mooy suñu doole ñun mais tamit seen mbégte mooy suñu bànneex saa su nekk ñu ngi fexee def le tout pour ngeen dundu làmb santi làmb te dinañ ñëwaat encore ci yeneen dinañ wàcc si le terrain léegi léegi lay doon yàggat ah noonu lay demee ñu bàyyi ngeen sant gërëm. waaw tàggatoo. waaw maa ngi bëgg waa Grand Yoff yi nga xam ne waa Grand Yoff fa laa juddoo fa laa defee lépp aw fenn fu dul Grand Yoff hmm. kon waa Grand Yoff waa Grand Yoff combat bi seen combat la waa Grand Yoff combat seen combat la mafia doy hmm? ne mafia Senzala bi. Hmm? mafia Ajana bi hmm? mafia réseau bi. oh caat am nga soxla. ñu ñep ci caat lañ jëf sam boy ndaw yi kii bo sama booy ndaw yi mafia sans loi bi. ah may bëgg gaay yeb gaay yeb ñew wu ci ma est-ce que comprendre nga wa Ajana. wa Rio. Eh, Touba Arafat. Eh, Grand F. Grand F waa Grand F eh, ko ñu gaay yeb maa leen di gaay gaa yi wu ci wuy sama incha allah rabi jour boobu noonu bu ñu jàppee open press bi gars yëpp ñëw ñu kale ko est-ce yi yëngal foofu noonu entraînement naa lu mu war a entraînement def naa lu ma war a def sama gaa yi waa Grand Yoff kon jour combat bi bëgg naa ngeen ñëw wuy sama billaay wallaay ak mafia euh, teeru bi waa teeru bi gars yëpp sama gars yi waaw ku si mel ni Badjo sama gaañ sama doomu nday ndeysaan ne ko gaañ xama rek bu gën a yokk góor gaañ xama rek lii du dara bébé tu comprends Ama Ndiaye Pama Diop euh, euh, Badara Kebe ñëw leen ngeen jàpp ci combat bi seen seen doom moo aye le 27 janvier bi incha bi rabi. si mel ni tamit euh, kii na la tudd waa Waalo ak Père Diaw ak kii tamit kii tamit ba fàttewu ko tamit maa ngi maa ngi maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax moom tamit mu ñëw mu ñëw jàpp ci combat bi. Ousmane Ousmane Ousmane Sarr Ousmane Sarr. Ousmane Sarr combat bi sa combat bi comme ni nga daan jappé eh, rek sama gaay dama bëgg gaay def bloc ay eh, bloc gaay la bëgg ñu jënd bloc yépp Ousmane Sarr pro mom tamit moy lool yag na japp ci combat bi barke Serigne Bamba ci combat bi passé eh, mbooj ne ma maa ñëw jël ci ginaar ñoo tamit moy lool noonu. lan la promoteur mëna xaat ci yeen waaw ñun dañuy duy esaat bu mu fess ñun hmm. ñun dañuy duy esaat bu mu fess wa Grand Yoff. Hmm. Serigne Bamba wa ko ñu njaagoon ñun tamit maa leen di bégee ñoom tamit gaay yi hmm. japp ci combat bi Grand baay bàyyi ma ñëpp. billaay walaay képp ki nga xam ne maanaam li mu wax rek jàppal ne bi maa loolu noonu xel xel day fatu waa maa ngi jéem mm-hmm. euh, le 27 incha ku gën a féete xale. kii maa gën a féete xale. ku dàq ko gën a nekk ndaw maa ko gën a ñeme entre maa ko gën a ñeme lu metti maa ko ñeme ñeme encaissé maa ko ñeme. Pambal waa Tiwaawoon tund Morla bi yëpp daal booy koy séeréer la booy séeréer la mais dun doo ko bu baax a baax mais doon ay doon xabrata combat bi dala a ci laan joor nii luxus nii fulum ballu mhm. kowut mbengeen mhm. bëyti xay kasa daaru alpha mais dun doog di xool sa caméra fu ni fu ni voie vocale le janvier insha allah tàllal looy yaay soro mais ñaan boo tuura pour ma kenn di jël lii gaawte mhm. may woo képp ku may jàppale ay see yi nee sama FC 3 Lions sama yi maa leen di woo ci di leen wax ni seen combat la ak booy ndaw ñoom Ibou ngoon seen ay bi waa Diso xam nga maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn tundu Morla bi waa zone de ñaay bi bàyyiwuma ñun foofu lañ dëkk waa ñun foofu la ñuy tiitaroo ñun amuñu fu ëpp waa Morla waaw li dalee Morla ba Tivaouane Beyti ñu ngi leen di woo ci combat bi waa Beyti sama fan sa club bi nag maa leen di woo ki ci mel ni présidente bi Aïda Binta Tuuti Njóogu Faama Talla Mbengeen Grand Bamba Grand ngoon Ngoni Mbaye Gueye Mam Fatou waaw bàyyiwuma kenn yéen yëpp maa ngi leen wax seen taxawaay rafet nañ ñoo leen jënd tiset yi jënd billet yi ñu feesal kii mënuñu téye kii du ñu noog moom ku ëpp doole kii mënuñu ku ëpp doole le 27 incha allah le 27 mhm. yàlla na ko yàlla may ndam ku dàq bëre ku dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam ku dàq xeex lépp yàlla ko yàlla may ndam waaw maay woo ñëpp nag di woo ñi may jàppale waa Alma waa Espagne. Fane Mbengue mhm. maa lay woo ji billet yi. Mhm. ba moom maa lay woo ji billet yi Malick Gueye Thiès. ñaakaar mhm. sa Malick Gueye Thiès Grand maa lay woo. balaa may jeexal ne naa sant kenn waa muy muy kenn ci muy Assane Kathily mm. grand Assane kooku kuy sonn ju caati li ma la mm. suñu carrière da ci joué lu bari ñun bu ñu bëree Dakar tey ñun tey moom dox na ci ay jéego yu bëree bari kon mm. ñu ngi koy sant mooy Assane production mm-hmm. waaw maa ngi koy sant bu baax mooy ndaama bi rek ndaama bi tungune bi rek gis naa sa yéene ci man xam nga tey ñu ngi ñaan yàlla tamit egg osema quoi ba ñu teral ñun waa Mor la roi des arènes laa leen dig te insha allah day ñëw nañ ma ñaanal rek mm-hmm. waaw maa ngi nuyu ki ma àndal tamit Mbaye Ibra Jolof Mm. waaw maa ngi koy sant bu baax di woo jolof jolof yëpp waa Marsa Poisson tamit maa ngi leen di woo Marsa mm. poison mm. maa ngi leen di woo ñoom Abdou Ndongo ñoom Mosow leen wax ngeen jàppa ci ko mbay waa Tëngëj tamit waaye ma leen suñu waa igëri nag maa ngi sant samay kos dañuy sonn ci man kosu Malick kosu Konaté Ablaye Ndong mbëri kaay baax yëpp malen di bëgg gis na sen taxaway wa di len wax ni kontaan na ci yéen quoi di sante sama serigne bax di wax jërëjëf Baye Alpha Thiombane. jërëjëf Baye Alpha Thiombane jërëjëf Baye Alpha chomban ma sha allah amna solo ah khalil wa xal mo ngi suñu ben grand grand xalil. Babel ci Thiam. nuyo mbo nak du jeex. wa wa noonu la deme non c'est que da nga xamne tamit ñoo tamit xam rek foog foog ñu japp foog ñu japp ci combat yi. ak Serigne Bamba. ndax xam rek gaay ñoo dañu sonn. ñi nga xamne ñom ñoo ñom lay andal ñu yore ci walu bagage ak yore ku si mel duru Doudou Patrice. Mhm. Ndar Mm-hmm. papi mm-hmm. Maguette Samb mm-hmm. maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax billaay walaay taala di bëggee sama rakk yi mafia sans loi bi indien kaboy gars yi gën a ñëpp ñëw jàpp gaan ñëw jàpp si combat yi gaan ñëw ma jàpp saa yi daan ko jëlee bu set bi daan ko duma ko daan ko caat yow lan ngay wax promoteur bi lan la promoteur bi mën a xaar ci yow waaw promoteur bi li muy li mu soxla ci ñun insha allah dina mm. gis muy mbooloo mbooloo mi waaw dinañu andi mbooloo dinañu bëre dinañ daan daan bi insha allah ñibbi waat Morolan di di gërëm sama booy bu baax ñoom Babacar Bakka mm. Mar Mbengue ngoom Aliou Abdou mm. Fall Serigne waa ñooñu Modou Modou Modou ñoom Omar Ndiafu ñoo ñëpp maa leen di woo ci combat bi di leen wax ni yéen def leen li leen war man ci géew gi man maay neexal. Mhm. maay bëree maay daan incha mhm. allah. bu neexee rafet nee ngi doog a. non non amitié amitié fitness. Mhm. c'est que gars yi xam rek tamit ñoom Codé dañuy teg lu mel ak ñoom Moussa Fall ak ñoom Mamadou. gars yi tamit xam rek foog ñu gërëm leen ñoom tamit si gërëm bi lañ bokk. dëgg la bilaa wala dara gars Angel Fall. mais ku gëm ne da ngay da ngay daan le 27 rek mën nga koo gàttal. Badara Kebe Badara ñew leen ngeen jàpp ci tëgay Ousmane sar bilay ka leen jàpp ci combat bi gaan bilay walaay taalaay ki tax ñoo jog ki lu suñu carré kii romb romb la rek kii ben gestu la ok léegi daa dans ben question bu mu lay posé waaw 2023 bi saison 2023 ban mo moo mujjee daanu ko la ku mu mujjee daan waaw ku mu non ku mujjee daan ci saison 2023 bi bi ni waaw ku mujjee daan ban bër gaaraw gaar mu mujjee daan wala loolu sa wax la de. Ah, kon si bu làmb de. bàyyi woo xel làmb de. bu waat lu may xool ci yow. lu may xool ci yow. yow mi lan lay xool ci yow. caat caat. waaw eh, tegal sa loxo noonu caat. saison 2024 bi. ban mbër moo njëkk a daanu. 2024. waaw. Boy Niang. non non. non non. ban mbër moo njëkk a daanu. moo njëkk a daanu. Hmm. ki njëkk a daanu ku tëjji saison bi ci jël la. ci jël la ci daanu ci mag yi wala mbëri ndaw yi. ci mbëri yu ndaw yi combat rek. ah non ndaw yi moom jàpp ma ah. yaaw jaan moo njëkk a daanu ah. <laughs> yaa yaaw moo njëkk a daanu. Ah, 2023 euh, caatu ngéwél moo mujjee daanu mu ko tëj. acca ah, doon lay demee ah yaay faal tik tik mbëri dinañ ma ko dinañ ma dóor dóor ba mu bëgg a mais amul problème. mbeur yalla ko may ma ngi bëggee wa aca xaar ha ñu tëj émission bi wa xaar ñu tëj émission bi moom nag daa xaw a yàkkamti nag mais li est-ce que tamit bu ko indé jour combat ba dina bax <laughs> doyna wa mais ma ngi bëggee ñëp di bëggee sama technicien ma ngi leen di bëggee bu baaxa baaxa baax di bëggee sama cheikh Idi ma ngi koy bëggee di wax gaay yi le 27 janvier nañ ko bayé xel armée bu euh bébé julde moy grand combat mais spécial bi boîte vocale sigil Touti. man nag am naa problème tey spécial diggante boîte vocale la ak caatu limousine ñaar yi ma indi tey ci plateau bi ñoom ñaar mais di jëm le 13 janvier Baba Jaxal Ibu Afia combat bu neex a neex a neex a neex la combat bu neex a neex a neex la loolu yow yaa sañ ñaan ñu ñëw la 14 fils de Balla Lac Rose cëy combat combat boobu dina metti combat boobu nee naa leen Kandji production moo woote sama mag le 14 journée bu neex macha allah nga jël nga jël nga jël caatu yoof indi ko ak dof bi <laughs> ñaq jëriñu nee na moom dof la wérul combat bu neex journée yu neex aussi ci ci ci janvier mais ñu ngi bëggee ñëpp di màggal ñëpp di siyaare ñëpp bu ñu fi waxee yoo xam te waxul nag wala ñu jaxase ñu ngi jéggalu te xam ne dañoo bëgg mu neex rek moom moo tax ah. di bëggee promoteur bi ñu koy bëggee bu baax a baax promoteur bi tëgg journée bi ñu koy bëggee bu baax a baax ah. di am mbégte ak kontaan di leen jox rendez-vous beneen mardi incha allah yeneen champion yeneen i ndaanaana ah. mbégte ak kontaan depuis seen lool ba beneen incha allah.